salaamaaleykum mbokk yi tey la alxames ñetti fan ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñaar ci weeru ut ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñetti fan dafa bokk ci lim yu yi kon tey ci alxemes ji rafetul ci dara ñaanuk bis bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji nga xam ne amul benn buur bu dul moom tey tuub jëm ci moom astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayum wa atubu ilay xadisu bis bi an abi dar an ilnabii sal allahu alayhi wa sallam fi ma rawa an illahi tabaraka wa taala annahu qaal innakum tuxti'uuna billayli wannahaar wa ana axfiru dunuba jamia fastaxfiruni axfir lakum jële nañu ci abi sar mu jële ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ci li mu daan nettali jële ko ci yàlla tabaraka wa taala mu ne yéen dangeen di bàkkaar guddi ak bëccëg man may jéggale mbooleem bàkkaar yi sàkku leen sama njéggal ma jéggal leen xadis bi muslim moo ko nettali waxtu julli suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett timis juróom-ñaari waxtu wu tegal fanweeri simili ak benn gee juróom waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñaar